kii il a été très clair. c'est ça. Diomaye. Uh, non mm. oh, Diomaye mënul yeewu suba teel rek. wax ki wax li yow le respect des institutions. boobu daa ko hein ah. wax séparation des pouvoirs. Mm. wax le fonctionnement normal des institutions ba yegg ba ci budget bi. ndax budget bi pour mu légitime assemblée moo ko war a force Il ngi dégg. dëgg la ba pare gars yi ñu bugg ko jox l'intention de vouloir dissoudre l'Assemblée nationale. Mais, mais, mais, quand tu dis l'intention de vouloir, il pour yow que mi ci euh, dissoudre l'Assemblée nationale. man li ma je hmm. parce que le premier ministre en général rebondit. ça va ngi Ouais. le premier ministre. Hmm. en général. <laughs> il rebondit. Hmm. sur la communication du président. Wow. il rebondirait. il prend acte ba mhm. pare wax les dispositions yi ñu si jël. waaw c'est-à-dire si si passage boobu. Mhm. si passage boobu non. Mhm. bu bi kii consacré une communication. le président. le premier ministre n'en a pas parlé. waaw li ma ragal li ma ragal mooy. mooy lan. ñu bëri ñu ngi ñu ngi xalaat dama dama ragal Jomaay euh, njuy gars yi suba Maman, nous, euh, dans quel sens. mais moi... Moi, DPG non euh, j'ai j'ai j'ai je me suis entretenu avec le premier ministre. Mm. J'ai ma volonté. de le voir passer devant l'Assemblée nationale pour faire une DPG. Mm-hmm. il m'a dit clairement qu'il n'allait pas le faire. Ah. par conséquent j'ai décidé de le démettre de ses fonctions. <laughs> Abi Diallo. non hypothèse la ah, ah Abi Diallo taal sa micro. non loolu moom kooku Abi Diallo laay bàyyi commentaire la non duut nag li nga wax noonu loolu gént la non kooku non kooku gént la non non non duut tey daanu ko ah, boole ko ci hypothèse mais hypothèse moom gëmuma ko. boole mais surprise lay doon. mais yow yow pour Diomaye ñëw taxaw suba nee day def day day day kii. Hmm. tey jii euh, démb la yónnee courrier. man moom jomaay moom fi ñu toll nii moom wax dëgg yàlla amul pour laaj avis euh, tontu ko waaw defuma benn objection ci mbir mi mhm. am nga droit mhm. lay fàttali ni yow treize yaa euh, euh, ma ko njëkk a merewee mooy man li ma ko merewee sax bari na waaye yow kee moo fi ne jomaay dina bu ñibbisee dina def discours à la nation mhm. kii na cëpp def laa mel man dama doon xaar sax mu ñuy kee bañ a def discours à la nation ndax nee bu dee def naa discours comme ni ko Koromak waxee discours pour wax ñu ne ah, pour attaquer encore une fois ñi fi jóge woon jaru ko nañu vocal. Hmm. waaye mu de mu dugal leet kii tontu ko tey jii ñu ni suba lay def euh, euh, discours à la nation. suba mais dugal lettre. mais mais mais lettre bi kay ko moo ko man dama jàpp ne waaw moom après avis xam nga avis yooyu amul euh, avis avis premier ministre dinañ def loolu waaw quand même wax la duudu avis avis bu premier avis bu président de demandé premier ministre ak président assemblée nationale reste un avis mhm. nekkul seen avis yooyu c'est bouge pas par pure forme. forme rek waaw mais man xam nga déjà li man li ma njëkk a mooy pourquoi mu dugal le pourquoi de cette lettre là pourquoi mu dugal ko donc man yow yow Doudou nga bëgg a ñëw fii ne Diomaye dina jàkkaarloog Sénégal yi suba daay ne. Hmm. dama koy dàq. mais Doudou dafa wax li war a mën a nekk. su dee demul. waaw parce que su fekkente ne ni politique générale Ousmane Sonko taxawul foofu. Hmm. le treize. Euh, Bassirou Diomaye Faye dootul amati valeur. Ah président de la république légitime. parce que. Le problème bi que kon Sénégal est en danger mhm. la signature du Sénégal sur le plan national et international dotul amati crédibilité mhm. la représentation ah diplomatique ici au Sénégal ñu nangooti jël ben engagement parce que micro bi micro bi micro parce que président de la République ci bopam mom mhm. mo ñëw commettre commettre loo xam ni kenn mënul xam nu mu mel parce que déjà am na ñu ko tuddee bu amul parjure lay doon am ñu ko tuddee haute trahison Mhm. par jour euh, par jour au présent parce que c'est le président de la république lui-même m'a convoqué nélène mhm. leen dina def politique générale Bah par politique générale mission li mhm. l'assemblée nationale def na ils ont voté la loi sur le CNDH Benen bi dem nañu voter benen loi bi mu sante ba DP